te nag suka dañoo dem Pakistan mm-hmm. ndax bu ñu ne Inde ne Pakistan mm-hmm. tey eh, dafa am xew-xew bu am ca Pakistan depuis démb muy ancien président wu Pakistan muy Irfan mm-hmm. Imran xan Imran xan nag eh, nekkoon président Pakistan jóge fa depuis ci weer yale ñu génn waaye gannaaw ba mu fa jógee nag coow li daal di woon na bëri même laata mu fay jógee sax ba ba mu fa jógee tolof tolof yi ak euh, maanaam coow yi ñu ngi doon cib keneen nañ ko tëj ñi naan nañ ko faat ñi naan def doon jaay suuf ci anam bu lewul wala sax dafa dem ba yokk sax di yokk Pakistan par rapport ak yeneen frontières yi yooyu yëpp ñu ko koy tuumaal tuumaal ko wàllum corruption maanaam alal joo xam ne lewul comme ni ñu ko xamee ci àddina bi yëpp euh, maanaam tuumaal ko ci euh, temps yële rek tiré nañ ko fi ay bal mu faju ba génn wër waaye bi mu wëree nekkaat ci politique bi comme ni mu ko defee woon euh, avant muy nekk président ba bi mu jógee ci gouvernement bi ndax moom yàlla da ko may mu nekk koo xam ne pakistanais yi maanaam dañ ko bëgg bëgg boo xam ne danga naan kii lan la leen defal wala ñu lan la leen def ba tax ñoom ñu bëggee ko niñ ko bëggee te mu nekkoon njiitu réew ba nekkatu fu fii lañ jot a xam mooy nekkoon nga fi njiitu réew jóge nga fi askan wi fàtte nañu la mm-hmm. mais moom au contraire askan wi dañ ko gën a jox bopp gën koo bëgg ba tax na bi nga xamante ne am na problème yi nga xamante ne moo ngi koy dund depuis temps yële nag ñu ngi koy rëbb naan ko nañ ñëw euh, maanaam jébbal boppam yoon di ko tuumal daal mais muy xeex di xeex di xeex ba nekk démb ñu fekk ko ci benn saalu tirbinal dal di ko fay ne maanaam dal di koy caxat caxate yóbbu ko force ay takk der yu bari nag ñoo fa teewoon euh, bañ ko jëlee nag yóbbu ko dal di koy yóbbu prison euh, population pakistanais yi la dalee Punjab la dalee fële ca nu mu de dëkk bi lay fàtte sax Cachemire euh, ak dëkk yi wër Pakistan yëpp commencé def ay manifestation yoo xam ne euh, ñi nga xamante ne ni ñoo di gouvernement ba bañ koy jël euh, defe naa ne xalaatuñu woon ne conséquences yu toll ni dina jóge ci jëlu Imran Khan bi bu dee pare na rek toog ñu dem rek si seetaan éléments yi mu ñëwaat yeggal yi. Oh, असलम पाकिस्तानियों ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक वाले रूम में मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ इमरान खान साहब पेश हुए थोड़ी देर पहले यहाँ गिरफ्तार किया गया मैं एग्जैक्टली बता दूँ ये आप देख रहे हैं ये बायोमेट्रिक है ये बायोमेट्रिक मशीन है यहाँ बायोमेट्रिक करते हैं यहाँ खड़े होते हैं खान साहब वहाँ खड़े थे पहले बाहर से धक्का देके मारा तो मैं एग्जैक्टली इस जगह खड़ा था यहाँ पे यहाँ से खड़ा था वो सामने वहां से आके उन्होंने शीशा तोड़ा है और वो ये आप नीचे देख लीजिए क्या सूरत हाल है ये दरवाजा है और मेरी आंखों में मारा कि वहाँ कितना जोर जोर का सफरे हम तीन मुकलाते थे और इतना शदीद किस्म का हमला था बोला नहीं जा रहा है वाए ñëpp teewe nañu fiñ ko yóbbu जिंदगी मुकाबले का नाम है àddina confrontation la tudd जब हार मान जाता है boo ñàkkee maanaam ki gëm ñàkk mooy ñàkk ki nga xam ne gëmul ñàkk du mës a ñàkk. waaw macha allah yenn ci waxam yi sax jotuma dégg bu baax euh, maanaam euh, ci li mu doon wax noonu ci fin bi may seetaan naa ko avant euh, may ñëw fii maanaam mu ngi ne àddina confrontation la tudd ki gëm ñàkk moom mooy ñàkk du ñàkk waa même bu dee ñàkk nga sax yow na nga mel ni ñàkkuloo ndax ngëm-ngëm boobu moom la am moom li nga xam ne moo di Imran Khan démb laata ñu koy jàpp rek maanaam bi muy dem def na benn vidéo mu ne maa ngi dem mais ci dem bi may dem nii wóorul ndax ma génnaat maanaam ma dellusiwaat ci samay mbokk ak samay euh, maanaam ñi nga xam ne maa leen jiite mën na am ñu téye ma kaso mën na am tamit ñu faat ma comme ni ñuy faatee. ministre yeeg euh, politiciens ya nga xamante ne ni jaar nañu fi ndax euh, am na rek jigéen bi nga xam ne faatoon nañ ko 2007 comme li ko dal ni moom loolu moo ko dal mu ne nag ragal na ñu rey ko ragalul ñu rey ko waaye mu ngi ñaax ñi nga xam ne ñoo di ay partisans ñu gën a gëm seen dëkk te bu leen kenn fitnaal rawatina euh, jullit ña nga xamante ne nii ñu ngi foofee ànd fële ca Pakistan nañu gën a am ngëm-ngëm ci lépp li ñu nekk buñ ko reyee reyee moom da ciy sant yàlla. ndax moom dëkkam la mësa gëm dëkkam la mës liggéeyal Pakistan fa mu ko yóbbu kenn yóbbu ko fa wax ay wax yoo xam ne ay wax yu daw yaram la ci ay vidéo balaa muy dem ci tribunal bi waaye gis nga ko ba mu demee nag ca lañ ko fekk foofu dal di toj verre yi foqati ko génne ko dugal ko ci oto laata ñu ko fay dugal nag dóor nañ ko ay dóor yu métti toj bopp bi gaañ ko ci tànk dal di koy yenn yóbbu mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne kii toog ci nguur ba jóge fa lekk-lekk da koy dal di dund wala sax ki nga xam ne daf doon yootu nguur ba dugg ci nguur da ko koy teg eh, ñaare les conséquences yi nag maanaam mën na nekk ay jëfam maanaam jëfu ki nga xam ne moom la ñuy tëj conséquences yi aussi mën na nekk ki nga xam ne moom moo ñëw fekk si maanaam mu am haine ak rancune boo xam ne euh, maanaam ameel na ko ki nga xam ne moom moo fa nekkoon ba tax na mu teg ko ko waaye ci li ñu jot a seetlu ak li ñu jot a dégg ci ay témoignages ak askan bi ni ñu fi ko mooy kene ne Imran liñ koy tuumaal dara amu ci maanaam dañ ko bëgg a faagaagal ndax moom bañkat la te moom balaa muy nekk président. kirketeer la woon xam nga kirket moo gën a foor football maanaam Inde ñoom seen euh, football moo maanaam mooy seen football national moom mooy ki nga xam ne moom moo njëkk a indi coupe euh, cricket fële ca Pakistan nit ñi bëgg ko nag bëgg ko maanaam star euh, bu mag a mag la woon ca Pakistan avant muy nekk président ba mu duggee ci président bi nag euh, macha allah di def ay jéego yu am am solo def ay at waaye bañ ko fa jëlee nag euh, liñ koy tuumal daal mooy wàllum suuf ak wàllum maanaam luubal xaalis boo xam ne daal waru ko woon luubal maanaam lekk xaalisu askan bi comme nañ ko xamee fii ci suñum réew manaan bu buñ la jiitalee maanaam na nga na nga teg li nga xamante ne moom lañ la jiital ci yoon maanaam nga lewal sa nekkin ba ngay nekk ci réew mi ndax lu tax mooy conséquences yi ni tey jóge nga fii euh, bu dee ne da nga doon luubal di bànneex ak say njaboot ëllëg ak si biir say njaboot ñooy paye conséquences yi ak souffrance yi ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo la bëgg ndaxte tey depuis démb ay nit nelawuñu ay nit a ngi dee ay nit a ngi ñàkk seeni alal ñu ngi lakk ay avion di lakk ay euh, métro yoo xam ne sax euh, Inde Pakistan yi moomuñu ko chinois yee ko moom di lakk kër commandant yi maanaam tënk nañu lépp li nga xamante ne ni activité la woon foofee ca réewum Pakistan ba lu mel ni Amérique lu mel ni Canada ak yeneen dëkk yi commencé nañoo jël seen i ambassade pour ñu quitter Pakistan ndax ragal nañu ne coow li dina romb fi nga xamante ne fa la nekk ndax ki ñu teg fitna bi moo toll noonu muy Irfan xa muy Imra Imran Khan Irfan xan voilà Imran ak Irfan Irfan Irfan maanaam acteur la mais kii Imran xan la macha allah mu nekk nag actualité boo xam ne. foo dem ci télévision monde bi rek ñu ngi koy waxtaanee ñu ci ñaaxaale nag suñu politiciens yi ak opposants yi nga xamante ne ni ñu ngi yóotu bu ñu jotee ñu moytu fayanto waaye ki toog bu toogee na nekkee xelam waaye ànd ci ak ngor ak sella li nga xamante ne moom la yor ba ëllëg bu fi jógee jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom lay dund Imran mi du ko dal euh, aja Alaaji Sanjogu Mbeng waaw macha mhm. eh, am na solo tey it mhm. thème bi méngoo naag jamono. Mhm. jamono toll. waaw mu nekk lu am solo xam nga cricket yooyu muy wax. xam nga tey boo demee comme ay Japon am nañ seen bëri kii yooyu mais ñoom defe naa seen. jeu boobu. ay Inde Pakistan Afghanistan. waaw yooyu yëpp tamit dañuy jouer li nga xamante ni bii mooy. Euh, genre jeu boobu. Mhm. nga xamante ni bii xam nga Pakistan. Mhm. dafa nekk dëkk boo xam ne dafa yàgg ci manifestation. réew mi moo xamante ni. Mhm. man jamonoy pervers Musharraf. Musharraf ba mu ko jiitee ba gën a da gis ni li nga xamante ni bi moom la ñuy tuddee wàllu manifestation dama ko daan gis lu baree baree bari mhm. moo tax am moo tax boo gisee yenn genre violence yi du la mhm. bett mhm. parce que te attention fii seen manifestation mën nañu rey ay nit ñu bari mais ay nit ñu bari commencé nañ dee voilà dañuy rey ay nit ñu baree bari mu nekk loo xamante ni bi euh, ay kii yu garaaw dañ fa yàgg am dem dañuy dem ba peuple bi ci boppam dootuñu euh, ragal li nga xamante ni bii. moom mooy moom mooy dee. Mm-hmm. dootuñu ko faale. Mm-hmm. maanaam dañuy dem topp seen gëm-gëm moo tax mm-hmm. am réew. doo ko moo tax yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy commencé gis ci Sénégal. man damay tiit. waaw parce que. bu mhm. fekkee ne da ngay gis ay manifestation ay nit di ñàkk seen bakkan. te mhm. terewut nit ñi di gën a continuer di manifester. loolu du mhm. solution bi kon. kon faat nit ñi du solution moo tax bu ma déggee Moustapha Diakhaté naan. ñii buñ génnee ñi mën a jàpp ñu jàpp leen. ñi mën a rey ñu rey leen. Ah. comprendre nga mais c'est que c'est grave quoi. wax yu mel noonu nga parce que buñ demee bay wax yenn wax yu mel noonu rek day nekk loo xam ne du dangereux. thème bi li tax ma ne tamit aussi am na solo. Euh, damay wax ne bon ci fi nga ko indee jamono ji ñu toll nii. waaw euh, dafa baax. Mhm. parce que li tax mu baax. Mhm. Euh, dina permettre que ni ñu nga xamante ne bi tey ñooy mhm. gouverner. ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi yëpp. mën cee tirer leçon daal di xam réew mu amut jàmm. ni nga xamante ne bi noonu la mën a mel. parce que gis nga yaa ngi wane ñi ngi wane kër jàmbur. commandant bi xamante ni dugg nañu fa. di dal ci seen kaw. waaw te yooyu. nii lay wëree ci àddina bi. booy nii lañ koy partagé ci àddina bi nga gis ni mm-hmm. lay xew fële bul defee ne fële la xew mais ñi nekk fii ñëpp yëg nañ xam nañ yi nga xam noonu la yëf yi demee mm-hmm. donc moo tax lu dul jàmm sëñ Tuubaa nee na lu dul jàmm jàmm ko gën jàmm gisut lu ko gën fii gisut la ko gën fa ñu jëm mm-hmm. donc ku lay ci woo dafa war a nekk li nga xam ne mooy sa xarit te gis nga dafa am yu bari yoo xamante ni bi yuy watat musiba la te vraiment yooyu jarte jublu. Mhm. parce que fi mu toll nii tey. Mhm. ñii nga xamante ni bi tey ñooy Pakistan ci lii ñu nekk. Mhm. peut-être que ni sax dinañ dem ba ci biir dinañ réccu ne. est-ce que jaroon na ko. jaroon waaw parce que benn bakkan bu dem rek du ko jar. ay bakkani bakkan yoo xamante ni ay alal ay avion di dem ay. métro yoo xam ne ñoom ñoo ci doon. voilà du ko du ko jar te gis nga nit. da nga koy nangul lu ko sunu boroom jox. Mhm. parce que Parensaay benn nit la. Mhm. mais benn nit la boo xam ne population ba nangu wuñu ñu téye ko. waaw parce téye bañ ko téye moom moo indi. li nga xam ne mooy kii. te donc kooku jaar na sax ci nekk président ba pare. Mhm. kon bu yàggul dara bu fekkente ni bi tamit dañu bëgg a taxaw euh, wax ko mu am ay mbooloo moo xam ne ñu ngi si ginnaaw. bul yamale ñëpp. waaw parce que man jàpp naa ni justice pour mu nekk sax. Euh, justice dëgg-dëgg. war sa jël ñëpp yamal leen parce que am na ñoo xamante ni bii tey mhm. euh, boo leen yamalee àtte leen comme ni ngay àttee ku mhm. ordinaire mhm. Euh, mën na indi musiba ci réew mi kon dafa am ñoo xamante ni bii war nga booy kii war nga xool bu baax a baax a baax a baax ni nga xamante ni bii noonu nga noonu noonu nga defee parce que même sunu borom dafa def ay privilèges ci ay yonentam ak ay kii yoom yooyu dafa am ay nit ñoo xam ni bi da mm-hmm. leen tànn def leen ay privilège mm-hmm. ni yàlla privilégié ñenn ñi mm-hmm. ñu nit dañu war a am yu bari yoo xam ne dañu ko war a tirer leçon xool yenn yi parce que dafa am yoo xam ne suñu borom ma koy namm ci nit moo koy def ci nit donc euh, li mu am nii moom peut-être ñu bari jaar nañ fa mu ko am ko am voilà tey jii nga gis président boo xamante ni bi day wàcc suba ñu tëj ko ci kaso bi askan wa daal di cay ànd mais koo xam ne ñi ngi koy tëj askan fi amee te li nga wax ni dafa mel ni manifestation nationale la maanaam fépp ca dëkk bàyyi riir euh, panca panca donc nag loolu lim mën a yàq il faut que ñuy teg mhm. parensaay mbir yi ci balance di xool yëf yi mhm, mhm. li mën a yàq ñu daa dee moytu xam ni parensaay justice daf fee nekkal rek askan wi xool li gën ci ñoom mais tey bu fekkente ni bi da nga àtte àtte boo xamante ni bii li gën ci askan wi euh, mu mën na dugal réew mi ci guuta donc vraiment du ko jar kon donc ñoom ñi nga xamante ni bi ñi ngi koy topp nañu dellu xam naa ne dégguñu làkk bi ñuy làkk mm-hmm. euh, waaye problème boo gis rek yow da nga koy jël tamit daal di koy méngaleeg sam réew ñu jàng dëgg la bu ko defee nga xam ni ñoom mm-hmm. fi ñu dugg mm-hmm. yàlla musal ñu ci ñu bañ a dugg ci luñ may parce que erreuru ñeneen ñi yow dafa war a doon loo xamante ne bi say solution nga ci war a trouver pour génn ci bañ a tàbbi ci yenn erreur yi dëgg la voilà am na am na solo analyse bi nga def sa sa njoogu mooy suñu njiit yi dañoo war di def balance maanaam tey faa faatu mu simple mi boo ko bëggee boole tey ak euh, maanaam ak euh, su euh, saa maanaam ci waxin. Mhm. du benn. déedéet nit ki da ngay koy nangul li nga xamante ne moom la ko yàlla jagleel. Mhm. ndax tey jóge ci nguur bu yàggul dara askan wa maanaam mel ke ni sax jóge woo fa maanaam ñoom ba tey ji fi ñu ko teg. loolu la ñenn ñi dul supporter waaw ñëpp yam mu ne bu ñëpp yemoon cër am ñu gedd seen cër parce que ñëpp yemuñu dëgg la nit ñi yemuñu waaw Imran Imran Khan mi am na sens boo xam ne macha allah comme li nga wax la du njiit yëpp a koy am du n'importe kii kii moo koy am comme niñ koy waxee Omar bunu Xataab mhm. faatu di la gërëm indi nga actualité mhm. waaw euh, bu doy waar nag mhm. yéeme da xam ne des fois damay faral di wax naan euh, ñun suñu njiit yi ci àddina mm-hmm. dañuy xam lu ñu yor boo waxee ñu ne force reste à la mais duñ xam lan mooy force peuple bi. Mm-hmm. waaw ah, ah. waaw xam lan mooy force peuple bi mm-hmm. maanaam yow yaa ngi waaj rek. mais ki ngay jàkkaarloo ci lan la toog. ak lan lay waajal yow xamoo ko. looloo tax des fois di dugg ci yenn yi mun nga ci dugg. mais après leneen fekk la fekk suuraale wu ko woon parce muy nguur gi ak ñii di euh, manifestation yi. Mhm. yaakaaruñu woon ni dinañ egg fii parce que dem ba jëli nit. Mhm. ci doole yóbbu ko ci tribunal. waaw gars yi exfiltré ko non jëlee ko waaw waaw déggoo laa ma ne laa ki ñu yóbbu tribunal. la ñu dem exfiltré ko. Mhm. génnee yóbbu ne kenn du ko fi attewee. imaginez loolu. cest à li naan la loi dañ ko def au peuple. loolu nag ñuy àtte nañuy bàyyi xel peuple bi bañ ji xaar seen bëgg-bëgg bari nag ñoo àtte ñoom dañuy jàpp ne rek ñoom li bëgg moo war a am mais bu deen yow loolu da koy def mu nekk conséquence après ci peuple bi maanaam war nga sóoraale ci peuple bi ci décision bi ngay jël di ko jëmale ci nit ki tey ji peuple boobu tey war na ni tey ji mbir mi du loi ñun la maanaam Pakistan dem nañ ba ne mbir mi naka de du ay loi du ñetti nit ñetti nit yuy mm-hmm. toog di jël ay dogal mm-hmm. mais dogal bi ñuy jël dañ ko jël au nom du peuple sunu mais li ngay def si sama tur mais da koy def parce que daf ma war a neex. Mm-hmm. mais buñ koy war mais waroo ko def si sa bëgg-bëgg. kon loolu te àdduna bi boo xoolee village planétaire la depuis internet am. Mm-hmm. maanaam ñun ñëpp benn lañu. dañuy bokk ñi ñuy xalaatee dañuy bokk ñi ñuy gisee dañuy bokk ñu ñuy doxee. Mm-hmm. kon des fois yu bari il faut que ñu maytu ko loolu nag li nga indi nii dafa am solo. alerte la. alerte alerte la beneen bi ci topp. Euh, mooy. Euh, nga xool ngir li sànq li nga ne maanaam euh, nit balaa muy egg ci dara il faut moom coono ni nii mm-hmm. man dafa bokk sax li ma gëm man pour man suñu réew yi képp kun koy joxati suñu borom teg laay nattu mm-hmm. maanaam ay natt yoo xam ne da nga ciy jaar mm-hmm. ba bis ñi dina tax nga mën a yërëmaate ba xam ne man fi ma jaar mooy Japon balaa nga fay nekk ah. juge dañ dañ lay juge ay kii yooyu dañ lay tëj pour nga nekk ay kii kii waaw pour nga xam balaa ngay jël décision di tëj nit. waaw di nga ci bàyyi ah, xel waaw loolu njàngale la quoi. Ah, parce que aussi li naan euh, nguur dafa neex lu doon président de la république rien ne se donne sur un plateau d'argent maanaam nga xëy rek ñu ni la yow yaay président pour man loolu xajul ci bopp ku amul expérience tey des échec. Eh, <laughs> échec non échec échec échec échec <laughs> échec. ah échec échec dafa baax xam ne des fois nga gis nit ñu naan erreur la def ni nii li nga échec pour man amul adduna loo dund expérience la loo gis ci àddina expérience la parce que jaar-jaar bi ngay am mooy tax yow moo lay forcer ba li nga jiite boo ko yoree nga xam nan nga koy téye mais aussi nga xam nan nga koy doxalee loolu day yenn jaar jaar yi pour man amul benn problème parce que njariñ loo gis mu ngi ci ginnaaw coono dëgg la la récompense elle est au bout de mhm. comme tey jii askan wi ñun ñëpp nag daa am loo xam ne tey jii di nga Europe gii man des mu koy faral di wax samay xarit bu ñu toogee di waxtaan man leen Europe ak Amérique gii ñi rêvé ñun ñëpp dem fa wala ñuy gis seen nit di leen ñee mhm. mais tabaxuñ ko ci noflaay de ah. ay nit ñoo def ay pour seeni set ak pour seeni i doom ëllëg mais ñun dañoo jàpp ne rek dañoo war a toog tey ji lépp di dox loolu nag bu ñu ko dee def ñun li ñuy dund mu ñuy metti suñuy doom dañuy ñëwaat di ko dund muy gën di metti mhm. mais il faut que mu am une génération boo xam ne mhm. dañuy def sacrifice ci seen bopp léegi nag sacrifice boobu nan lañ koy defee dañuy liggéey duñu fayeku mhm. wala dañuy serrer la ceinture wala kun dañuy wàññi suñuy bëgg-bëgg wala dañuy xeex ak lu mu mën a doon mais moom il faut que une génération ñëw def benn sacrifice moom la Sëriñ Lamine ñoo doon révolution bu nee révolution ñu mmh, jàpp ni xeex la wala dara mmh, mmh. mais dangay gis ni sax ji nga ci néegu euh, néegu ñax wala sàkk sàkket wala kii barak man ci laa koy ndax seetloo bu lakkee bu bu bis buñ fay tabaxaat kenn du fa def néegu ñax kenn du fa def barak seetloo lan fay tabax mooy ab étage lay doon wala dara seddoo fu lakk am bu buñ koy defaraat rek day gën a rafet kon des fois il nga daaneel dara pour mën a taxawal dara mais ñi jël décision pour ci turu peuple yi mm-hmm, mm-hmm. mais ni respecte peuple yi te xam ne di nga li ce que le ba jëla ba dana li ab askan bëgg loolu la yàlla bëgg te nag li yàlla bëgg moom moo gën dëgg la loolu lu wër lu wër nga wax Assadi mooy sacrifice bi nga wax pakistanais yi ci benn vidéo ñu ngi koy wax lu bari sacrifice sacrifice pour Imran Khan sacrifice pour suñu dëkk ci dëgg muy lu am solo di macha allah Fatou mm-hmm. andeete nga lu am solo mu nekk tam mm-hmm. actualité mm-hmm. waaye dama naan waa ji ndeysaan am nañu ko bëgg man mii man ngi de moo xee dëgg nelaw ma guddi gi. barke yàlla nelaw ma ndax ndax kii ko ñeewantal ko. te ndax xam naa ni mu mel ci xolu doomi aadama yi ak moom ni mu mel yërmande ci doomu aadama yi. estar la ak yërmande ak euh, jullite bi mu jullite ak euh, maanaam mënu mënu ma wax sax lu sori mais li nga wax noonu dëgg la. <laughs> dëgg la xoolee ni ko aska wi. Euh, mm-hmm. dimbalee nga xam ne référence la woon si ñoom. xaw ma nag ndax li liñ ko tuumal li nga wax sànq dëgg am du dëgg mais gis nga dëgg fu mu féetee rek. boo xoolee mbooloo ma fa mu féetee di nga xam fii la ah, féetee tey bu ma la tooñee mm-hmm. ñaar ñi faral ma kenn ki faral la rek mm-hmm. boo xoolee xayma rek mën ngaa ne mm-hmm. tey euh, euh, ñaar ñi bu ñu la faralee wala kii faral ma mun nañ xayma ci nombre de personnes yi nga xam ne moo ëpp fi mu féete mën nga ne tey dëgg gi fii la féetee des fois dañ koy def ñu naan dafa far mais du far mais far si dëgg la parce que boo xoolee waa ji li mu def tey li li nga xam ne moom la commandant bi def mais dafa këpp si kawam ndax lan euh, ñu ngi koy àtte nga ne duñ ko fi àttee jël waaw jël nit ki toroxal ko yenn yi toroxal nit la mais sénégal yi ne astafurlah mais jeunes yi boobu fépp mais jeunes yi tey duñ nangu gis ngay toroxal seen moroomu doomu aadama mhm. parce que dafa nekk loo xam ne injustice la mhm. te jeune bu nekk ñaan nga yàlla tey sa réew li ciy dox muy dëgg mhm. mais boo fi bëggee nekk affaire andi affaire de injustice rek kenn du la ci bàyyi dara kenn du la may dara parce que jeunes yi léegi dañoo yeewu nekkatuñ bu njëkk ba nga xam ne politique lu la neex ngay def lu la neex ngay lif ñu naan lii léegi jeunes yi dañoo yeew faatu da ngay doxal dëgg ñu àndayu ci nga doxal foo ñu romb la dem loolu moo waral instant yi bëri ñu war a seen jëfin xoolaat seen doxalin mhm. far neex na loolu waaye far si dëgg dafa neex parce que à chaque fois ndam li ci yow lay féetee mhm. kon kii li ko daal métti na trop mhm. waaye tam réew bu nekk yaa ñaan euh, jàmm sax sa réew jàmm am sa réew mais li koy andi euh, ñoom ñoom ñi nga ñoom njiite réew mi ñoom ñooy bopp bi ñoo war a xool li nga xam ne mooy arranger réew mi mooy andi jàmm ci réew mi ñu ci dox mais bu fekkee yow yaa jiite li la war mooy jàmm tey ngay andi ay fitna mm-hmm. bu boobaa bu fitna amee rek mun nañ la yow yaakaar dëgg la kon nag mu nekk loo xam ne mm-hmm. faatu ñoom war nañ xool li nga xam ne moom la peuple bi dëgg euh, moo moo moo moo moo jig mm-hmm. ñu di ko def muy jàmm dañ dox si jàmm daal <laughs> li kenn mës a koo gis. solution ci biir solution. solution bi ci biir bu dee ci sànni kàddu wala temps daal dañoo <laughs> lekk. temps bi lekk ngeen sama temps lii. temps bi jeex na macha allah waa waa kon rek euh, muy lu am solo maanaam euh, Imran Khan la ñu indi woon rek euh, mu nekk koo xam ne nag ndaanaan la woon maanaam ci wàllum politique waaye nag askanu Inde gëm ko Pakistan gëm ko maanaam jox ko bopp bañ ko fa jëlee nag terewul bëgg boobu des ci xolu pakistanais yi ba nga mhm. xamante ne ba mu tolloo ci jafe-jafe bi askan wa ñëpp a génn te bu dul teeg manifestation yi askan bi def. Mhm. dañ ko doon rey moom wax na ko te nit ñi xamoon nañu ko loolu moo tax sax moo gën a tax nit ñi yëngu ndax yooyu moo fay yàgg di am moom wax na ko balaa muy dem ba tax na askan wi ñoom tamit xam lu ni mel moo tax ñu teg seen bakkan démb ba léegi nelawuñu loolu nag nekk loo xam ne lu yombul la maanaam cofeel gu toll noonu ñu am ci moom yombul ci ki nga xam ne jóge na fii muy njiitu ancien njiitu réew maanaam mm-hmm. kon rek ñu ngi koy ñaanal yàlla génne ko ci xat-xat yi waaye ñi nga xam ne dal dalagu leen te ñu nekk ci yoon bi te mën na leen dal à tout moment ñu bàyyi ci xel ña nga xamante ne aussi ñoo nar toog ñu bàyyi xel aussi ci keneen nit kenn du ko jaay doole maanaam looy teg nit ki rek natt ko ci sa bopp mhm. li laa indi woon rek ci seen rubrique India Show di nuyu mama Aram Sankare ak waa këram waa Grand Dakar ak ind fii lépp macha allah kon mhm. suñu clip ak suñuy vidéo suñuy ñamax ñamax na feeñ sànq moom dama commencé fecc fecc séeréer yooyu macha allah ndax kontaan <laughs> alors jërëjëf jërëjëf Dieng Sala nice na indeeti nga lu am solo ci li nga xam ne rek moom moo di réew